at mu jot bu ñuy waajal tabaski gi ki nga xam ne moo fi nekkal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall dina jël ay xaru tabaski yóbbal ko ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di xalifa général des Mourides. ci alxamis ji dëppoo nag le 7 juillet 2022 am di Fall moom Serigne Modou Mbenda mi nga xam ne mooy xalifa général des bay Fall yóbbul na Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général de Mourides lu toll ci junni ak téeméer ak fukk xar mu nekk xaru tabaski nga xam ne at mu jot moom la ñuy dajale. yóbbul ko sëriñ bi fii ci Baye Fall ga nekkee ci ginnaaw Jannatul Mahwa ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi fi la ñuy waajalee mboolem xar yi ginnaaw bu ñu leen sangee ba noppi sëf leen ci camion yi ngir fas yéene jubali fi nga xam ne moo di ca Daarul Minan yóbbul sëriñ bi mboolem xar yi. লা লা লা লা লা লা ফা লা লা লা লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ fala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fala ilaha illallah la ilaha La ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha la la la ilaha la la fa la ilaha la la laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha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 la la la Fa la la ha la la Fa la la ha la la

bi ñu agsee ba gis sëriñ bi jébbal nañ ko li nga xam ne moom moo di liggéey bi sëriñ bi jàng lettre bi nga xam ne ci lañ xaatim mboolem addiye ji ci lañ door a yëkkati kàddu yi muy kàddu yoo xam ne kàddu yi sëriñ Saliou Fat Sow la muy kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci xalif général des Baye Fall taalibeb sëriñ Mountakha Mbacké bu mag bi ci kër Cheikh Ibra Fall ci jiite yoon wi moo yónni tey ji ay rakam njabootu Cheikh Ibra Fall gi liggéey ba daan bàyyi koo kër maamam Cheikh ak magam yu bax ya tay ji yalla sa borom dogal serigne Amdi Fall toge jotaayub Cheikh Ibra Fall nekk ca kër Cheikh Ibra Fall di deglu ndigal li liggey bi daje nak mu séq ko njabootu Cheikh Ibra Fall gépp mu woti won démb ni dama bëgg ngeen daje fi yeesalal ma xar yi yees pek bam melni borom tuwa bëgg bu ngeen suba ci ji ngeen ñew suma ji Cheikh Fall mom serigne Modou Fall mu and ak rakam yi ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gi ngeen jotal ma ko sama yaakaar kiy dimbali jaam ñi tey ak ëllëg sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacke ibnu Xaadimu Rasul doomi sëriñ Basiru ji mi ngi ñaan Mbacke lam waxoon nga gën fee yàggaloo te ànd ko wér ñu déglu sëriñ Saliou waaw sëñ Saliou sëñ bi nee mi ngi lay nuyu di la siyaare nee di yabal si njaboot gi nag mu jiite rakkam ji di jëwriñam muy Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng nga xam ni moo jiite liggéey ba woon ci stade ba te xam ni barki démb la ko yeewil mbooloo ma te loola lépp la ko waral mooy liggéey bii tey muy tabaski yi mu dajale mbooloo mi te gërëm leen ni leen nañ leen dellu bu demee jublu ci tabaski yi defal ko sëriñ bi nam ko ko daan defale démb ba nu xëyee lan dem sangal ko xar yi te jii mu xëy ni yóbbu leen ma xar yi te santal ma sëriñ bi te ni ko ñoo ngi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ku wér te nga yàgg ñoo jox ndigal li ndax ñu day mbàkke suñu bëgg génn lekk la mooy di déglu sa ndigal de jëfe seeni koo jëfe nag Mbàkke nga ñaanal sa jàmbaar ja sëriñ Amdi Fall sëñ Mourou Mbende li nga koy digal waxtu wu ne mu di ko jekku ndax amul genn bëgg-bëgg lu dul bëgg xam sa bëgg ba defal la ko mi ngi lay xamal ni ne jëwriñam yii di sëriñ Cheikh Ndiaye mi ngi doxal liggéey bi ci na nga xam ni bu toowoon moom mënu ko weesu nee mi ngi la koy xamal nga ñaanal ko ak rakkam yii mu àndal ak doom yi ne mi nga taxawu liggéey bi nag bakke nu mu rafete ñoom day génnuñu ci nee na nga ñaanalal ko rakkam yi te ñaanal ko ñaanalal ko dongaam yi nee ci kor gi leen génnewoon woon de bi nu waree ak bi nu delloo ca liggéey ba yàggul de lii sësaat bi te fa suñu yéene yi mukk te du daa mel ni nanga ko bëggee neena na mag ñuy wax ñunu serigne muntaha di serigne bi dañu yebaloon ci nekku serigne Cheikh jëm faal mu and serigne Cheikh ndjay mi ci ci proxan fekk la fa neena mu nuyo ak yow jottali ko ni serigne bi wax ni la ñonga bayiko ci stade ba ci liggey ba nga wax ni ah ma leen ko yene ak war gu ngeen ko wara def waaw ak war gu ngeen ko war a def yéen bay Faal yi mu ni leen xanaa kenn ku nekk sëriñ yéene Serigne Mountakha Mbacké jooju mënu yéene ñun bay Faal yi Baay Faal bu nekk war nga ca taab bi dugg ca war gun ko war a def kenn ku nekk ci ñun war nga faa nangoo nekk de loolu yi nag loolu la bëgg ñun ñëpp yéene jooju ñu borom Tuubaa mi yéene ca xam la fa nekk te yéene ñu ko. ak war gun ko war a def ay waay Baay Faal yi nan leen tënku ci li sëriñ bi bëgg te yéene ko ba nu am ko jërëjëf Mbàkke sëriñ bi nag doon na wax ni ndigal li nga ko joxoon ci weeru koor wi ba nu wari nga joxoon ko ndigalul ni ko waree leen foofa nee ndax dañ koy wéyal ci tabaski bi walla Mbàkke nu ñuy def loolu na waxoon ni Mbàkke ni bu ngeen demee jottali li ma ko sëriñ bi ginnaaw kàddu yi sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalifa général des Mourides santaan na bu baax baax ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci jëf ju kawe ji nga xam ne defati nañ ko te nga xam ne duñ jóg ci di ko def. waaw sëñ Mountakha nee na sëñ Saliou loolu sëñ am dama ko waxoon na ko wéyal kon julli gi foofu la waaw sëñ bi nee julli gi foofu la sëñ Cheikh sëñ Mountakha nee na boo demee nga waxal ko sa jëwriñu sëñ am na mu defoon ca kori ga na ko def ci tabaski bi fu mu bokk Serap na ko fekk foofu ñu jullee foofu Tabaski borom Touba day wax ak ñun di wax ak Serap Fall sëñ borom Touba nee dégg na li nga doon wax nee dégg na ko bu baax baax de. nee na day gën a fedd li ak laxa rek fas yéene ko gëna a ànd ak yeen waaye yéen day soññuwu leen nee na moom mii mooy soññu boppam nee jërë ngeen jëf wax ji jërul guddal jërëjëf ne serigne bi moma ma leen gën gis mo le moma leen gën a yëg leen xam ne moko gën téeméer junni yeen yoon ci ñun te nee moom de lu mu yéene boppam ak ku sëriñ Tuubaa ku ne kenn jiituwu ci Seex Ibra Faal waa këram nee jërë ngeen jëf nee loolu rek la jox te ñu yóbbaale ko seereel ñu ko ne nee mi ngi koy seereel kàddu yii di ko seereel yàlla sunu boroom moom mi nga xam ne amul kumpa mi nga xam ne lu nekk ci ñun moo ko ci def ci baaxuk sëriñ Tuubaa gi lépp nag ci pàggu teefuk sëriñ Tuubaa gi nee na xon dey xanaa gën a sant ne li lu war ñun noo gunu nooyi ñu boole ko akuk cant li fekk ñoo ngi nooyi jërëjëf waa kër Cheikh Rafal ci fàttali at mu jot waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall daañu indil ki fi nekkal Serigne Touba ay xaru tabaski daaw Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na yàlla yokk ay leeram taasu ci barkeem junni xar la indi woon waaye ren ji Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda yàlla na fi gën a yàgg loolu te gën a wér yokk lim bi ba ci junni ak téeméer fukk ak benn boole ci ñaar fukki xar ak juróom-ñett yi nga xam ne at mu jot danañ ko yóbbu ca njaareem